bi nga xam ne ni jàpp naa dafa naqari kii nga xam ne mooy Ouzin Bongo nekk xaytu Ousmane. Ouzin Mbaye. Ouzin Mbaye Ousmane Bongo donc c'est la même chose déglu Ouzin daal di ñëwaat ci plateau bi gën ko faram fàccee. dégg nga tax demoo. daw ma woowuñu ma. Ah! man moo ma woowul. baax Viviane. Mhm. singalam bi mu def ngénte li mhm. man ak moom a ci ànd. barki démb bi mu ganee xaw ma lan door. Mhm. extérieur corridor bi mhm. ñaari yoon yëpp fajar mhm. ñoo ko teeru aéroport mhm. moo ñu woo woo yaat ma ne ko wol ma Ouzin Mbaye lu muy def keroog ba mu bi ñuy feete ngénte li grand théâtre maa taxaw ci Christian ndax man ak moom dañu def duo ci albumam boobu kon bu ma toogee lu mel ni doomu Viviane ñu koy maye du yaat ma ci am bu ma woo du Viviane. Mhm. du mbokk Viviane lan laa fay def. Mhm. man je ne suis des genres de griot. Mhm. wax naa ko dama koy waxaat. barkeb Serigne Saliou. barkeb Serigne Saliou. barkeb Serigne Saliou. man loo ma woowul doo ma ci gis. mais ba tax eh, eh, Babacar Bongo la ñu woo muy nekk foofu di wax naan. kenn woowu leen toog leen seen kër kii di ko lu tax muy communiqué noonu. mais tamit xam nga chaque samedi. chaque dimanche. du lay neex. mën ngaa tey lënd bi mhm. ñu ci baree ci seen kër toog tëggi wuñ mhm. mais am na ñu tëggi mhm. noonu la rek moom samedi boobu moo aaye lépp lu mu fa am yan na ko jig yan na mel ni ndoxum galaas ndax wax na dëgg moom la nu woo ci bés boobu ñun woowu nunu woowu ñu ma man man sama bopp man bu may wax man léegi damaa dama du tuddati benn xale ndax man maay seen ma maay mm-hmm. seen kilifa maa tax àddina bëgg bongo mm-hmm. bu dul woon man mm-hmm. ñii dañuy doon ay agresseur ñii ay wëyu ñii ay buujumaan ñii ay coxeur ñii ay bi ñamax ñii ay pataas bi nanax à cause de Ouzin Mbaye xale yépp tey ji yor groupe ku bëgg bongo man buñ ma gërëmatul waratuñ ma xarab mhm. moo tax tollootuma fu may jógee gis nga bu gaynde gu mag yuuxu mhm. gaynde gu ndaw yuuxu mhm. dangay xam ni bokkuñu sabin bokkuñu école bokkuñu kalaas lu nu am nag ci këru yéene naa leen ko ci barkeb Serigne Fall ci barke Serigne Sadi lépp lu am ci këru àdduna yéene naa la ko mais man dama ne lépp boo ma gërëmatul waroo ma xarab dañu wax ci xew Viviane bi yan na ko jig alors euh, bi ñamax mooy lan Ousse. bi ñamax. Hmm. daanaka la bi ñamax pata sapeta bi ñamax. ok ngeen ko euh, moom wax na ko nee na carrément que euh, maanaam moom nag bokk na si nga xam ne ñoom ñoo tax ay xale yu bëri bëgg bongo donc képp nga xam ne nii teroo ko si waroo ko si xas. Mhm. mu mel ni maanaam kàddu yi nga xam ne mbay wax na ko nekk kii di Babacar Bongo moo ko wax da ko metti loolu alors waaw mais comme ni ko waxee moom si biir waxam. samedi yow la. bande di kii dimanche kee ko doog baaw kër bongo la woon te toj na ko tout mënoo wax naan rëkk rëkk na rëkk naar voilà mënoo wax yooyu. wax lan rëkk na na rëkk naar. ku jigéen moo ko doon wax. rëkk bi. ku góor la. kon xam nga ni moom la. waaw. waaw léegi loo naan tadu moo ko doon wax. ah puudar dama la posé question. waaw non de confirmer. ah d' accord la woon. Koumba Sarr. anglais yi bii bi laay bi moom mun moo ko liggéey. where there is a police gather of you don't get invitation if you go if you go there it is a trespass. Hmm. est wolof rek wala ah, français. moo gën nag pour ñu mën ko teg. Mhm. yaa waroon civilisé rek ne ko mënuma lire lii naa ko mais mënuma ko traduire. waaw ah. lii naa ne yomb na vas-y non dafa wax lu rafet Ouzin Mbaye wax ni Babacar lu mu fa am yàlla na ko jig. Mhm. Viviane xewam bi yàlla na ko jig. waaye lu luñ ma yëgalul duma ca dem moomoo keroog bi ñuy wax ci waxu mag vision nit ñi di posé wu la question lan moo tax gisuñu ko ci xewu Zeyna Ndour bi mu ne dañ maa yëgalul la ma ca waxoon laay waxaat ci bii muy man nanaa luñ ma yëgalul duma ca dem ak lu ma bokk ak bokk ak yow ak lu ñu xaritoo xaritoo ak lu ñuy ànd di ànd soo ma yëgalul sa xew du ma ñëw parce que nag fulaay jaay Dakar wala ma ñam jeexal ko nooree ni ne fulla du jaay Dakar da koy màcc nit bu amee fulla moo ko may boppam gis nga xewuñ la yëgalul boo fa demee lu fa xewul buñ la joxoñee yaatooñ man nag wax dëgg yàlla Ouzin Mbaye moom fulla laa ko xamal ak fayda donte nii rek lañ nañ xamante parce que euh, jege yoon taw ñu nangam ak nangam peut-être ni koy ni ñu koy gisee ci télé man noonu laa ko ciy gisee waaye fulla rek la wax ful rek la jëfee. voilà donc c' est très important nit moom fu ñu la wowul bu fa dem loolu la. d' accord Ousse. waaw Ousse bu ñu fontoo de. waxal may li def ma ful. <laughs> Ousseyn Mbaye bi ñamax mooy bu ñamax man maa bi ñimeex patasa bi daan ñamax. Ah, loolu la ay temps la quoi. waaw ah, loolu mhm. ay temps la. Mhm. Ousseyn Mbaye l'homme fort. Mhm. il est noble ce gars-là. de même que Babacar Bongo. il est noble ce gars-là. de même que Babacar Bongo. oui waaye seen baay la. Babacar moo dem ci événement bi. y' a pas comparaison ah, amul foofu waay moom moo. waaye man man damay comparer. seen baay la bu fekkoon man man naturellement sax waxuma ay baay boobu. Ouzin hmm. Mbaye baayu us déedéet maanaam mënuma de boo boo bëggee wax li ñu lay wax muy leer ci sa bopp moomu mhm. da ngay teewlu mhm. boo teewloo di nga xam mais nit ki mënul bëri nga ni non non mhm. boobu yi day am ndax dalante la d'accord mais boo teewlu ba nit ki fu mu jëm nga xam fi mu jëm bu la neexee nag nga ne ko fi nga jëm baaxul mais bu ma nga jubal fa dama ne la Ouzin Mbaye bàyyi Babacar la ci lan ci lan ci ngéwél baayam ndax moo ko man fuuf ci âge baayam la ndax man ma ko bàyyi ndax bi kii di bongo Babacar bongo gi fajaa bi simba di solo gaynde gu jigéen te baaxul te Babacar bongo du bongo maan taasukat la déglu ma moom ñëppati xam déglu ma Babacar bongo hmm. du bongo maan loolu taasukat la dañ may waa déglu ndax li may déglu li ngay wax dama xamul woon donc damay déglu gaynde oh. xaw ma ko woon si Babacar bongo baaxul woon bett na ma li ma la wax ma kañ man mii gaynde gu jigéen lion ci tubaab ñi koy dégg d'accord yaa ngi comprendre Ouzin Mbaye bongo maan xam nga lu tax Ouzin Mbaye mooy bongo maan boo xamante ne bu desee taasu bu la keppalee bongo day bongo di taasu wallaahi kooku bongo maan la mm-hmm. kii boo ko joxee bongo du def noonu mm-hmm. taxaw taxaw la mën naan ma taasu ko ñii di tëgg ñii ñuy bongo moom taasukat la mm-hmm. comme Mor Thiam Géwél du bongo man taasukat la mm-hmm. Ousseyn Mbaye taasukat la mm-hmm. plus bongo man la ba pare gën leen correct Ousseyn Mbaye danga koy xool bëgg ko mu rafet doon giir yow nga ne bi Ousseyn Mbaye di taasu moom benn bi jigéen la woon maa ko waxaat man te li may xam na ko man yaa ngi dégg daal ma kay Ousseyn Mbaye soo koo gis ci xew ay tànkam xar mbaa bu weex da koy gis bëggu ko may mhm. ngir civilisation ak parfum bu neex bu diwoo loolu moom seede naa ko waaw loolu maa ko seede Babacar dafa civilisé yi dafa neex rek pour ko gis moom ndax de un yére du ko sol lu ci bëri mhm. Babacar da nga koy gis mu sol lu ample des mhm. ne rafet des ne di xeeñ lu neex géwél da ngay doon géwél waxuma la céwél keroog ko def. bi may yuuxu naan eh, mooy géwél waaw. ci xewu Viviane nga laaj ma ma tekkil la. Mhm. Mamadou Mbaye mhm. xamul géwél yi. Mhm. mais ñooñu nga xam dañ lay kar. Mamadou Mbaye gar mi ndeysaan mu ne ko jërëjëf avancé keneen mu génnaat junni jox kenn dox keneen ne jërëjëf mu génn junni ma ne ko waaw waaw yaay géwél pire. taxaw fi ma taxaw xam nga tax boobu sama der jëngu la parce que dafa def yëf noonu moom moo duggoon. Mhm. yàlla nattu na moom moo dugg ñu teral mhm. ay nawleem am na ñu duggul. bi mu mhm. génnee moom da leen teral. ndeysaan. est-ce que xale yi kon waruñ roy roy que du ay duñu na ci ñoo xamante ne dañuy gàddee di teel duñ ay géwél xamuñ sax dañuy. ñii leneen lañ. ok bëri na ci ñoo xamante dañoo juddoo nag. ci askanu géwél hmm. ngeen cee bon parce que li géwél di jëriñ ak li géwél di def defuñ ko hmm. Babacar Bongo mii ngay tudd ne Babacar Bongo du géwél nga ne si quitte le plateau quitteel ñu àggal quitte va eh eh, eh us information tay nga wax non ma ne déglu ma ah déglu yow laay déglu Babacar géwél mu may ne xam nga lu tax hmm. xanaa xamoon ne nit boo yaroo te civilisé loo bokkul dañ la boole nit di nga bokk ci loo xamante ni dangay ñàkk ñàkk teggin réew ñu génne la ci. Mhm. kon baaxul nga fu fu mu jëlee géwalam bi. déedéet dégg la. gér gu yàqoo raw géwal sax nag. yaaram mbir yi dégg la rek. Mhm. us doo ma jàngal ndax ma dégg man. waaw boo dégg la rek moo la féetee. Wally Seck ba muy wéy ba muy tàmbalee Wally lu bon lay fecc ba léegi mënul fecc sax. mais da ngay xam ne léegi Wally Seck dafa am temps. waaw parce que daa toog jàng correct. mais Wally yi lay dégg de. yaa ngi comprendre waaw ku ma ku nekk dégg. sama doomu Mbaye seet. léegi mu am mais Wally non mais dëgg la Ousseyn Ousseyn Mbaye ma kontaanaat ci moom xam nga lu tax. Mhm. Ousseyn posé question ko doon a dugal. mbay la la waaye kenn ko dugal xam nga lu tax. Mhm. Ousseyn Mbaye ñaata xew la tegale. billaahi doo fa gis bongo man. Mm. kii bu ñu bëggee bongo nit Sénégal bu bëggee bongo ba jox ko cër. Ousin mbaay lañ gis. wallaay ndeysaan ak Vieux Niang mhm. te moom mu jàppale leen ci. Mhm. bongo léegi man bongo moom bongo la bongo boo xamante ni dangay ngay ay cub bongo day naturel. Mhm. ngay dégg kaka léegi bongo kagas kagas. tëm. déet calme rek. non da man da aar laa lay wax. non xam naa mais seen day yëngu yaa ngi ko naan gëgës. non dama lay wax mais kan. xam naa uus sa gëgës ak gëgësam bokkul man boo ma joxee bongo nii jox ma note bongo tak hmm. ma téye bongo bongo nga dégg nii man léegi. bëri na ay son yooyu dégg ci ay ay ay ay zikarkat. Mhm. wala nangam sangam seeni son di am xiin maa ko defar ba mu baax. loolu moom leer na Sénégal jaamaana ngi nekk. loolu moo am sax gisuma ci clip te luy luy percu ma dugal ko ca. macha allah. bëri na bëri na bëri na bëri na. Mhm. du yooyu. Mm. dëgg léegi dafa am nag mbir moo xamante ne boo ci nekkee da koy xam. boo ko mm-hmm. xamul jàngi ko. Mm-hmm. bañuñu ko. boo ko xamul nag dama jàngi ko boo ko jàngee nag ba teg la ko maanaam kuy bongo maa war nga xool Ouzin Mbaye. Mhm. moom li wax leer na de. Mm-hmm. te li wax a neex. ndogalu yàlla la. billaahi Viviane bi muy xewal doom kan la yëg. Hmm. Babacar. boucher bi muy tijji. Hmm. li nga xamante ni mooy restaurant kan la yëg ñaata bongo man la xam. Ousseyn hmm. keneen ku fa ñëw boo dee bongo man rek dañ la fa woo am na ñu fa ñëw ñoo xam ne bongo man yu am classe la ñëw jënd dem ca kaw toog. Ousseyn di ko toj. wallaahi Ousseyn ñaata xew la toog. Marème Faye Sall bi bi bi mu toogee bëgg ambiance ak ay xaritam takk am kan lañ sentir Ousmane Bongo. Mhm. ku ci nekk am na ku la neex. comme man vision li li kii wax. Mhm. keroog bi ñuy photo sentir mu photo leen. taal taal lañ photo c'est simple. kooku taal moo demoon simple jarul. d' accord comme comme ni koy waxee merci beaucoup Ousse. nga ni Ousseyn Mbaye bi ñuy tudd gaynde gu jigéen la di wër ci simb yi di fecc. d' accord ah. merci beaucoup man Ousse man man bu ñu wax affaire géwél lii moo tax ma lay bëgg di la jox kii waaw. parce que sa yaram day tàng te nga bàyyi li ngay def Ousse balaa balaa ma lay fekk foofu coupé <laughs> alors bàyyi ko rek alors. direct buñ ñuy def émission Ousmane di woo gelam appel. appel vidéo direct yow mi mu woowul nobu la. nga xam naa bu fekkee jotoo appel mu nobu la. alors nañ wax si yow mi du dëgg de Seydou du dëgg. ah maye Seydou du dëgg du dëgg du dëgg du di de. alors na wax nañu wax kii Ameth ah d' accord tong tong tong entrée oui. allo. salaamaaleykum. encore madame Diop. madame Diop acca ñu ngi lay déglu. <laughs> waaw dama ne